muy suba 5 euh, septembre ñu war a fêter euh, six ans yi nga xamante ni crash boobu amoon na ko ba euh, juróom-ñaari nit daal di ci ñàkk seen bakkan am nag mbir yu lëndëm yu bari wax xamante ni euh, mi ngi ci biir accident euh, boobule lépp daañu ko waxtaane ak kile euh, di Al Hassane Hanne menaces yi nga xamante ni mi ngi koy daal di jot ndax dossier boobule wante tamit moom muy xeex ngir rek ñu daal di koy rétablir ci ay droit am parce que bi mu alerte deux ans avant crash boobu di am loolu mel moo waral ñu daal di koy xañ liggéeyam àqam ak yelleefam daañu ko waxtaane ak tamit suite dossier soixante yi ñu expulsé woon ci terme sud moom mu bokk ci famille ah, yooyu le daañu aborder yii les sujets ak kile di Alassane Anne xanaa ñu bàyyi ko mu daal di eh, jéggalu ci tarde bi parce que loolu moo tax ñu yéex a commencé. asalaamaaleykum eh, mbokki auditeurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar eh, di gërëm rédaction bi waaw di jéggalu aussi ci maanaam désagrément yi waaw embouteillage yi rek ñoo ma téye woon ci yoon wi. Mm-hmm. waaye incha allah lépp dina leer. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, comme que temps bi bariwul. Euh, te sujet bi c'est très intéressant juste dinañ la laaj euh, ci suite dossier soixante dix neuf familles yi ñu expulsé woon ci terme sud dossier bi fan la toll exactement où sont les soixante dix neuf familles. waaw léegi ñëpp yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku. 30 septembre 2020 Euh, ci biir weer wii le 30 septembre bii di ñëw lay def at. 79 mhm. familles fekk nañ leen faj fajar seeni dëkkuwaay. Mhm. attaqué leen ak ay grenades lacrymogènes génne leen ci anam yoo xam ne ñëpp ko naqar lu ñaaw lu ko tey. Euh, euh, li ko wund woon nag mooy rek. Mhm. benn lobby bu fi newoon. fekkoon ñu ñun nekkoon ay militaires. en activité comme à la retraite nekkoon ci ay kër yoo xam ne ci terrain état bi la nekk. te état bi ci boppam. Euh, jëloon dogal ne day morceler terrain boobu pour joxe ko à usage d'habitation mhm. ñun ñu dëkkoon fa doon fay suñu xaalis ñenn ñi def fa plus de quarante ans mhm. suñu doom yëpp juddu fa mhm. ñu jël suñu dossier jox ko état ba état exploité ko ba desatul lu dul woon ñu defar suñuy boo jox ñu ko am nag ñu ñu ko gën a soxla muy benn lobby saay-saay boo xam ne euh, ëmb ay militaire ay civil ñu def seen pexe dem tribunal lijjanti kayit goo xam ne tey jii nee nañ moo leen taxoon a tax euh, ñëw dal suñu kaw kayit googu du woon lenn lu dul coopérative militaire de construction nga xam ne ba coopérative la comme bépp coopérative mm. euh, ñu ñu ñu instrumentaliser woon ko mu dem tribunal ne état bi da ko jaay trois cent mètres trois cent trois hectares de terrain nu mm-hmm. nga xam ne kenn dëkku fa ñun ñu nekk ñu établir sur presque dix sept hectares ñu jël kayit googu rek ñu dal suñu kaw keroog yéen ñëpp gis ngeen ne ba ñu defee seen opération ba ci ëllëg sa bi président de la république woote ba ñu génneel ko këyit yëpp lépp wone na ne comico boobu amu fa woon dara benn ñaareel bi gis ngeen bi yenn euh, am di jàmm yi autorités yi accès génnee nañu këyit wone ne terrain bi sax ci boppam état amul woon sax droit jaay ko. Mm-hmm. tant que jàllale ko assemblée nationale muy lu metti tey famille yëpp tasaaroo nañu désagrément yi dem nañu ci euh, am na ci ñoo xam ne génn nañu àddina ndax naqar ñii si bi loolu amee bi loolu amee parce que dañoo tas famille bàyyi euh, jaar ni euh, doom jaar ni soxna jaar na leen ñi nga xam ne ñi ngi woon foofu dëkkoon terme sud amoon seen infirmerie à proximité grands hôpitaux yëpp nekk biir ndakaaru ñu amoon ay pathologie saa yu leen dara euh, wokkee ñu ñu daw faju ji ñoo ñu tey ñu ngi woon ci euh, environnement boo xam ne mhm. mënuñu woon jël seen bopp en charge ba tax na am na ñu ci ñàkk seen bakken mhm. ëllëg incha allah am na ci suñu soxna boo xam ne moom lañ dinañu célébrer quarantième jour. Euh, kii am am na ñu suñu doom yu ci génn àddina am na suñuy naataango yu ci génn àddina muy lu metti euh, xaar ndax naqar bi bi. Mhm. ak injustice bi. dossier bi nag pour ne pas aller très loin. Mhm. Euh, bu ngeen gisee ne àdduwuñ ci boobu ba léegi. Mhm. c'est parce que jëlaat nañ ko delloo ko biir tribunal. tribunal xoolaat la mu dogaloon fan la ko tegoon ak naka la ko dogalee woon mu rectifier ko li ci des mooy kilifa diine bu mag a mag ñu seeti woon ko sàkku woon euh, mu dimbali ñu ci kàddoom mu jël dossier bi moom ci boppam woo président de la république jébbal ko dossier bi xamal ko carrément ne ko ñii dañ leen a tooñ waaw nañ leen delloo ci suñu seeni i droit boo boog léegi nag mi ngi bëgg a def diir. Mhm. incha allah. 30 mhm. euh, septembre bi fas yanu nañoo yéene euh, fàttaliwaat bésu dëgër kis pisement boobu. Mhm. à cette occasion toute la presse y sera conviée. ñu tegaat dossier bi sur la table lépp li nga xam ne xewoon na ci. ñu wax ko askan wi askan wi xawee ko noonu xamee noonu parce que dafa di loo xam ne tey jii. Euh, waratul mën a am ci Sénégal waaw. waratul woon léegi koppar yooyu ñu doon wax ni état bi daf ko génne pour jox leen ngeen am fu ngeen dëkk logement ainsi de suite est-ce que mën nga si indi ay leeral. Euh, Alassane loolu loolu euh, waruma ci woon sax wax parce que ñun kenn woowuñu waxtaan ak ñun. wala sax signaloo ñu quoi que ce soit bi déguerpissement bi amee désagrément bi am ñu xam ne injustice la ci la état bi jël dogal. Mhm. dans un premier temps xam na ne catastrophe la ñu woo ñu woo collectif bi ne ñu dañ leen di jagleel te loolu joxuñu ko lu dul les soixante trois euh, chef de famille à la retraite mm-hmm. soixante dix neuf la ñu woon les seize ñu beddi leen teguñ ko woon fenn parce que seize yooyu ci ñun la ñu bokkoon mm-hmm. ñu leen di couper seen indemnité de logement ñu nekkoon ci kër yi defaraat kër yi parce que état du Sénégal joxoon na leen ko ba pare. Mm-hmm. ñu wéy ak désagrément boobu ba pare ñu xañ leen loolu. Mm-hmm. loolu ci combat bi la bokk parce que ñooñu xaalis boobu euh, ya doon euh, comme ñun jot nañ ci ñoom dañ cee war a jot. 10 mm-hmm. millions yooyu du dara lu dul état bi nee na def ñu ko jagleeloon en urgence pour ñu jël en charge suñuy famille. parce que ñi ngi ci mbedd mi nekk nawet. amuñu fu ñu dëkk ku ci nekk na nga jël sa famille daw ma xam en attendant mhm. en attendant parce que ñun jàppewuñ ko indemne mënul mënuñoo indemniser ci loolu sañuñu ko sax mhm. donc dix millions yooyu tey amul kenn koo ci làmb ci ñun ba mu woon la ci dërëm parce que booboog léegi parce que booboog léegi euh, famille ñi ngi en charge ñi pratiquement euh, collectif bi ñëpp a ngi nekk en location te famille yi nekkuñu woon Euh, nekkuñu ensemble. Mhm. parce que ñun kër ya ñu. dañu tas ku nekk uti location ku location. Mhm. ñun dañu dëkkoon dëkkuwaay boo xam ne euh, ku ci nekk da fatoon sa njaboot. Mhm. ak difficulté yi amoon yi am ci réew mi doom yi liggéeyuñu. ñii dañoo takk jabar amuñu possibilité logement ñëpp nga fat leen sa biir kër. say mbokk sax bu ñu ñëwee. wàllu amuñ fu ñu nekk ñu ñëw euh, jóge ci région yi ñëw nekk ak yow. ñu nekkoon ci ay kër yoo xam ne. Euh, macha allah kër yu mucc ay la woon. Mhm. parce que américains yi ñoo ko fi tabaxoon. di dem bàyyee ko français yi français yi doog ko bàyyeek sénégalais yi armée sénégalaise dem ba soxlaatu ko soxlaatu ko delloo ko état du Sénégal état du Sénégal walbatiku ne da koy joxe loolu même buñ leen ko waxul sax xam nga ne nit mënoo dëkk ci béréb quarante ans ñu xëy di joxe kër yooyu nga dëkk ñu ne la génnal ñu jox ko keneen loolu xel sax nanguwu ko. loolu mu gi noonu lañ ñu def. Mhm. dégg nga kon da ngeen dossier ba léegi yéen a ngi ci xeex bi. non fas seenewu leen bàyyi. non dossier bi. Mhm. mënuñoo mënuñoo xalaatuñ ko sax. dossier baa nga tribunal. Mhm. booba ba léegi mën nga tribunal. 30 septembre ba léegi ça fait un an euh, jour pour jour. est-ce que nekk tamit Alassane da ngeen di sonal seen bopp mais xam ngeen ni foofu du ngeen fa jotaat logement yooyu ak ni mu demee. logement ñun euh, ay sénégalais lañu. te encore une fois du ñu ay sénégalais ordinaire parce que dañoo tayle suñu bakkan am na ci ñun ñu ñàkk seen bakkan am na ñu ñàkk seen i cër doon défendre askan wi fa ñu nekkoon terrain état bi la état bi jël ko di ko mercelé di ko joxe lañ ciy wax yëpp teguwul fenn parce que terrain la boo xam ne tey jii bu ko bu mënoon a nekk terrain militaire armée du ko jël delloo ko état du Sénégal. tey mënuñoo wax ne dañ koy confier waat armée mhm. parce que armée déjà sax mënatul nekk côté boobu mhm. parce que côté boobu à usage d'habitation la nit ñi tabax nañu seeni immeuble ay R plus 4 R plus 5 surplombé euh, base opérationnelle base ba dafa war a jóge à coup sûr terrain boobu dañ koy morceler di ko joxe pourquoi morcellement boobu ñu defoon ba génnee plan cadastral mhm. ba euh, loger ñu ci ba suñu tur ku nekk nekk ci pour hmm. pourquoi continuer wuñu loolu euh, valider ko ñun ñëpp ñu jot li ñuy jot ñi ci des parce que ay ay ay centaine de sénégalais ku ci nekk waroon nga ci am sa parcelle. Hmm. ñoom ñëpp ñu ngi xaar am na ci ñu amoon seeni i boo notarié li ci nekk li nekk ci dossier bi yëpp yëfu caaxaan la parce que ay ay bandi ñoo toog def gisee def seen biir def seen yëfu caaxaan. parce mënoo jël tey euh, lu toll nii euh, cité boo xam ne ay américains ñoo ko tabax. mais nee nañ logement de fonction la yéen nekkatoo leen fonction nekk logement jox ko ñeneen est ce que tamit Alassane Anne yéen nekkoo leen di jàppandu si loo xam ne leer na leen ni euh, soxna si mhm. ma wax la lu gàtt parce que ay militaire ñooy wax waxante mhm. amul benn militaire bu am màqaama armée jox la kër nga nekk ci kër gi armée ne la génnal nga ciy teg baat quarante huit heures doy na pour ñu régler problème boobu su nekkoon ay logement de fonction du ñu àgg ak armée fi ñu déjà sax tu woon ñun ak armée ñun ak coopérative militaire de construction la parce que cité kii bi terrain bi dañ ko doon jaay. Mm. nañ ko waxee dañ ko doon jaay maanaam sax dañ ko doon cédé te ñun ñoo fa newoon ñoo fa dëkkoon armée l'armée n'avait absolument rien à voir la preuve bi déguerpissement bi amee au lendemain ngeen dégg président ne euh, confie naa euh, site bi armée donc en amont la veille armée amu fa woon ndogal et pourtant ñoom ñoo fa dugg indi seen i militaire indi seen i gendarme dal ci kaw euh, famille yi donc la ñu def noonu exaction la catastrophe la tey jii il faut ñoom ñu réparer ko loolu rek laa mën a teg ci loxo askan wi en attendant. en attendant dossier bi dossier bi di génn en attendant aussi euh, dans les tout prochains jours ñuy def suñu assemblée générale di informer askan wi ci suite dossier bi après déguerpissement bi. voilà Alassane ñu ñëw ci euh, li nga xamante ni mooy euh, crashu avion Air Sénégal euh, bi nga xamante ni mi ngi amoon ci 5 septembre ni gi ni suba kon la ñuy fêté anniversaire bi 2015 yow nga nekkoon ci biir avion bi est-ce que mën nga waxaat sénégalais yi Euh, lan moo xewoon ci avion boobu exactement parce que nee nañ yow deux ans avant crash bi di am avion bi di daanu euh, bindoon nga ab rapport euh, pour daal di alerte les les autorités ba loolu jural la ay gàllankoor mais bala ñuy ñëw ci xañ gi ñu la xañ say àq ak yelleef. 5 septembre 2015 lan moo xewoon ci biir avion Air Sénégal Sénégal Air ba mu daal di daanu ba juróom-ñaari nit ñàkk ci seen bakkan waaw maa ngi door d'abord di euh, jaale euh, mbokk yi ñi nga xam ne ñoo ci génn àddina muy juróom-ñaari nit euh, ñaari algérien benn congolais ñetti sénégalais ak benn patiente française moom la ñu jëli woon waaw di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla xare aljana li ci des mooy man technicien d'aviation la mhm. maanaam moo nekk sama métier. man nekkoon euh, jàng ko nag depuis ba may nekk xale bu tuuti dem à l'étranger Sénégal formé ma ci académie bi ma ñibbisee liggéeyal armée lu ëpp ñaar fukki ak juróom directeur général Sénégal Air boobu ci jafe-jafe yi mu amoon pour am ay techniciens yu yu yu qualifiés yu ko téel compagnie moo ñëw armée de l'air di wut ku ko jàppale xel xelu waa armée de l'air yëpp dem ci man parce que am na fu ñu ma euh, fu ñu ma tegoon. ñu ñëw maa ngi woon congé sax ñu ñëw fekk ma sama kër diis ma ko. dans un premier temps dama bañoon parce que Sénégal Air mooy compagnie boo xam ne nit ñi xamoon nañ ko. 1995 mm-hmm. defoon na fi nga paru ba ay nit dee ci. Mm-hmm. bi mu ñëwee di sàkku samay compétence li ma ko njëkk a wax mooy man Sénégal Air xaw ma woon sax ne mi ngi continuer exister parce que li ngeen nekkee woon dëgg du yoon. directeur général bi ne ma ñi fa nekkoon doon caaxaan dañ leen faa jëlee. léegi man ay techniciens yu baax laay wut am na déjà ñu fa ne ma dem boobu maa ngi armé génnaguma gu yaa ngi armé maa ngi armé génn gu ma mais nag am ay jafe-jafe yu tar. ci biir armé euh, ci bi yoo xam ne euh, du da du woon dara lu dul problème mu terme sud problème logement yi. yooyu moo taxoon ñu la doon indil. ay problème ma doon indil ay problème ci biir armée bi ci biir armée bi du ma du du ma avancé su ma euh, su stage amee duñ ma yóbbu. Euh, te mënuñu maa bàyyi parce que euh, la ñu la ñu soxla maa ko yor. Mm. ak euh, ñu mel ni man. léegi nag bi ñu ñëwee bi kooku ñëwee bi. DG te terme sud nga ne moo ko waraloon moo ko waraloon. donc problème mu terme sud bi yàgg na. problème mu terme sud c'est de, depuis 2008. 2008 d'accord. 2008. Mmh. léegi mmh. bi DG bi ñëwee ba ma wax taan ak moom loolu ma dem foofu seeti ko. bi mu bi ma ñëwee ci structure bi fekk moom dafa yoroon ay roplaan yu ndaw yoo xam ne dañu doon def Dakar Ziguinchor mooy bi euh, Air Sénégal International daanoo Dakar Ziguinchor euh, amatul moom mu jël euh, engagement ne da dafay def dessert depuis tous les jours chaque matin da nga war a positionner sa avion yëpp ay passagers yóbbu leen delloosi leen. Mm-hmm. ma dem foofu fekk fa loolu di ko ci jàppale. saa yu ma xëyee fajar damay dem préparer avion yi ñu dem mission mu wëlbatiku ñib ñëw armée de l'air liggéey ba wàcc dellu foofu roplaan bu ci am jafe-jafe ma lëkkaloog ñi ma war a lëkkaloo ñu ñu defar ko le lendemain ñu defaat suñu mission. Mhm. bi ma ko defee d'octobre deux mille dix ba mars deux mille onze ci la taxaw carrément ne ma man il faut que man ma bàyyi armée ñëw jàppale ko. parce que daal gis na ne ni ma nekkee armée am na lu bari loo xam ne euh, vraiment euh, na foofu il faut que sama présence permanente foofu. Hmm. gis na sama njëriñ ci tàng-tàng bi mois de mars le premier mars mu signeel ma benn lettre euh, d'engagement dans nommé ma euh, jox ma euh, contrat à durée indéterminée. Mm. ma chef de maintenance. alors bi ma jëlee loolu. daw ak moom di hésiter di hésiter mu teg ma pression ñenn ñi sax nee nañ dañ daf ma liggéey. Mhm. ma xëy mois de mais ci laa def sama demande de résiliation de contrat armée pour mën a génn foofu. pour mën a génn ci armée mën a génn ci armée bi ñoom it ñu tegal ma berceau parce que bëgguñu ma dem. parce mhm. que malgré jafe-jafe yi ma amoon ak ñoom yëpp bëgguma bëgguñu ma demee noonu. Mhm. ma xeex ak ñoom ba jóge fa. ci laa dem Sénégal Air bi ma ñëwee nekk ak Sénégal Air foofu ba avion bi daanu ñëw en 2012 ma amoon fa ay bu li rapport bi firndeel na ko ay jafe-jafe yu bari yaa fa laa fa amoon ak ñoom. Mm-hmm. parce que la ñu doon def lu ci ëpp jaarutoon yoon te euh, daanaka. Euh, direction général de l'aviation civile ay inspecteurs ñoo fa ne ñoom ñoo ñoom la nguur gi chargé ñuy ñëw di inspecter euh, di xool veiller à ce que lépp jaar yoon tous les jours am na lu bari loo xam ne dafa ca doon sooxe ma dem ba njort ne am na complicité bu am ci ñoom te ay bakken yu yu yu yu taxaw la. Mm-hmm. donte euh, boo xoolee ne Sénégal Air ci boppam déjà defoon na ay accident yu bari. Mm-hmm. bi ma la tuddal nga paru maa ngi la ciy dolleel Euh, avion boobu suñu ministre Ndioro Ndiaye daanoo woon. Mm-hmm. Sénégal la woon. Mm-hmm. donc ma ne ñii vraiment euh, caaxaan yi ëpp na. ëpp waaw parce que nit ki mënta fay xaalisam ak ni muy toll yëpp ñëw pour nga yóbbu ko en toute sécurité ngay fooye bakkanam déjà ñun suñu étique ak suñu déontologie mayuñu ko man en tant que chef de maintenance ci samay loxo la nekk duma ko seetaan. Mm-hmm. ci laa waxtaan ak ñoom en interne. gis ne ñi ngi dëgëral. parce que ñoom simplement euh, yaakaar nañ ne seen seen seen complicité bi dem ba ANACIM may na leen lu leen neex ñu def. Mm. ma sol samay dàll ànd ak syndicaliste bu nekk ASECNA dem ANACIM dem fekki euh, boobu directeur général bi nekku fa ma dem fekk fa euh, adjoint mooy secretaire général bi tey jii mooy Mamina Camara. damay tudd turam pour que tey jii moom ci mm. boppam mu bañ ko weddi man ak syndicaliste boobu ñu dem ma toog ak Mamina Karamara tegal ko loolu yëpp ne ko nag dem leen foofu ngeen xool la fa ne lii mënta continuer donte nee na jéem na mais man bi ma dellusee ci compagnie bi gis naa ne lii buñ ko saafaroo musiba day am dina am ma jóg jël sama këyit waxtaan ak sama ñi ma waxta war a waxtaanal ñi nga xam ne euh, caaxaan taxu leen a jóg ma ne damay def sama rapport yoon moo ma ko may ci sama liggéey ci sama environnement wu liggéey ma def sama rapport circonstancié décrire li fa nekk parce que dafa yomb. Mm-hmm. roplaan yaa nga fa na ay technicien génne xaalis ñu jënd li ñu war a jënd. liggéey ko. Mm. ñëpp nekk en sécurité. munu ko mu dégager abal koo xam ne mën na ko mu ñëw bi ma defee rapport bi déposé ko le 17 avril 2013 le 24 avril 2013 mu jébbal ma lettre de licenciement parce que boobu gisee na ak lobéem ne ko kii daal boo bëggee ñu continuer di exploiter ni ñuy exploiter di wut xaalis ci avion yi te duñ ci sonn kii fexeel nu mu fi jógee mu jébbal ma lettre de licenciement pour motif économique. Hmm. ma jël lettre de licenciement bi waxtaan ak sama conseil ñu yóbbu ko tribunal de, du travail euh, yoon di ko topp bàyyiwuma loolu ma xam ne compagnie bi buñ ko bàyyee mu continuer mm ay nit dinañ ci dee ma bàyyi euh, kii boobu dossier boobu licenciement bi euh, ma bàyyi ko ak avocat yi man ma dem ci administration état bi euh, primature médiature Euh, service yi nekk aéroport yëpp ministre du travail ministre de la justice Mimi moo fi nekkoon ba ba muy nekk premier ministre dem naa foofu ba moom ci boppam lëkkaloo nañ ba mu yónnee ma euh, réponse Boun Abdallah Dionne dem fu nekk assemblée nationale yéen ñëpp euh, wax nañ leen ku ci nekk ay député ñoom ñëpp dugal naa leen ci parce que ñoom laa daan am embarqué ci avion yi ay autorité rek aviation d'affaires la woon mhm. donc bi loolu amee man ma dellu sama kër toog toog fu ma déposé pour ñu jël ma. ñu refusé no du ñu refusé parce que ñu bari bëggoon nañ ma jël parce que man ñu nekkoon aéroport. Mhm. genn wàllu service yooyu yëpp seeni dirigeant samay collègues lañu ñoo bokkoon nekk Air Afrique parce que jaar naa Air Afrique bëgg nañ ma jël mais ANACIM def leen tegal épée de maanaam man waruma dugg fenn ba may jóge foofu fekkoon na euh, ASECNA Euh, defoon benn avis de vacance de poste ma postuler ñu def euh, seen simulation hmm. ci état membre yëpp sama tour génn ñu désigné ma pour ma dem defi entretien d'embauche direction générale mais ñoom ci seen bopp lobby bi nga xam ne euh, autorité yooyu nga xam ne ñoo taxaw teg seen tànk ci sama carrière am na ci ñoo xam ne kenn ki ministre la kenn ki directeur général lañ ñoom ñëpp ay ay cadre ASECNA lañu ñu taxaw carrément ne man duma joxe ay instruction foofu pour que entretien bi bañ a am mhm. bi may dem di dem assemblée euh, euh, kii euh, direction général ci yoon wi la ma secrétaire bi woo na ma entretien bi dañ ko reporté parce que technicien yi yi waroon a def entretien bi ñoo disponible dañu dem mission bu ñu ñibbisee dans quinze jours dinañ ko tenir hmm. mail lañ ma envoyé woon mail bi maa ngi ko photocopier maa ngi koy mësuma entretien mësta am parce que simplement bi ma duggaatee ASECNA am naa fa ay collègues yoo xam ne ñoo bokkoon nekkoon Air Afrique xamal nañ ma carrément nañ euh, autorité autorité yooyu hmm. ñoo teg tànk ci sama carrière boobu hmm. mu demee noonu ba mënatuma liggéey aéroport licence bi ma waroon a jot pour mën a dem sax jéem a tenté génn Sénégal dem ci compagnie aérienne étrangère yëpp mënoo ko jot dem liggéey mënuma am condition yu tax ma jot ko ma bind président de la république bind médiature Euh, euh sama avocat euh, des droits de l'homme bind président de la république loolu yëpp pour ñu delloo ma ci samay droit am bàyyi ma ma liggéey malheureusement gis ngeen ni le le le le 5 septembre 2015 da ngeen xëy ku nekk ñu ne la am na roplaan bu daanu ci géej gi nit ñaa nga fa. Mm-hmm. man yëguma lu dul xaw ma woon sax ne euh, yaakaaroon naa ne ñoom dogu nañu ba arrêté compagnie bi dootu kii. Hmm. ndekete euh, euh, vers le mois de hmm. vers le mois de juillet non arrêté woon nañ ko. Hmm. bi ma defee rapport bi rek la ñu arrêté compagnie bi arrêté exploitation yëpp parce que xamoon nañ li ma leen wax roppalaan yi ni ma leen décrire woon am na ci ñaari ñetti roppalaan ñoo fa nekkoon bi daanu ak yeneen ñaar. benn bi euh, doyoon na waar doy waar boo xam ne ñoom ba ñu ñëwee ba xool ko li ma leen ci wax bañ ko ci gisee dañ ne waa ji bii na fi jóge waa ji def ko mujj daggate jaay ko en pièces détachées beneen bi ñu jël ko tegee ko nële. benn rek bi des benn rek bi des ñu ne ko balaa boo bëgg boo ko bëggee kii nag di nga ko defaraat ba mu teguwaat ci yoon nee na ñu defar na ko moo tax nee nañu ñu jël autorisation jox ko ko en je crois c'est en en juillet deux mille quinze njëkk na jóg ba commencé exploitation. Mhm. ba mu njëkkee jóg dem bëgg a mbëkk roplaan ci kaw. roplaan boobu yuux alerté autorités yi ci suuf. Mhm. ñu woo leen ne leen avion boobu bu wàccee na ngeen ko bloqué inspecté ko ñoom ñu ne inspecté nañ ko équipement ya ca ne suñu domaine la ñañu yónni pour ñu inspecté ñu ñan la. est-ce que am nañu euh, disons dayoo pour def loolu. dans tous les cas ni rapport bi rapport yi génnee wone na ne déjà inspection boobu jaarul yoon ba tax na roplaan boobu moo jógaat euh, le 5 septembre. 2015 2015 dem wagadugu euh, jël fa tubaab bi feebaroon. Mm-hmm. di ko delloo si Dakar. fekk benn avion euh, Seiba intercontinental 737 Boeing bu defoon presque. Euh, soixante euh, euh, cent cinquante passagers jógee Dakar di di dem xam naa Douala Malabo ñu tase ci ci ci à hauteur de Tambacounda. Mhm. mbëkkante foofu yàlla def ci sutura ba mbëkkante bi du choc frontal parce que bu doon choc frontal non seulement ñaari roppalaan yi dañu daanu mais cargaison boobu yëpp. Mhm. ci kaw. Tambacounda lay daanu. lay daanu imaginer leen nag. Mhm. catastrophe boobu. te loolu yëpp man bi may def rapport waxoon naa nee ne woon naa leen euh, inconformité yi am ci compagnie bi bés bu catastrophe di am du ngeen xam kañ lay doon du ngeen xam fan lay doon et du ngeen xam naka lay demee te loolu moo am heureusement ba muy mbëkk roplaan boobu ma ngi ko mbëkk ci ci ci ci buudeel ba parce que foofu c'est moins grave mhm. amul anomalie yu bëri heureusement commandant booru avion boobu xool na ba xam ne mën na jël roplaanam yóbbu passager yi ba euh, base am wàccee leen foofu ñu yebaat leen ci beneen avion yóbbu leen seen destination ñoom ñu jël seen avion xoolaat ko noonu la ñu def li législation aéronautique wax ci loolu loolu ñoom la concerné mais avion bi ba mu jógee ba mu defee loolu ba pare parce que dafa wàcc yoonam. Hmm, dafa wàcc yoonam. dafa wàcc yoonam. xamul woon sax fa mu nekkoon parce que li la koy won mooy instrument de boor boobu nga xam ne moo lay won ne yaa ngi à telle altitude fiñ la teg buñ la laajee foo ne nga jox leen sa altitude mu méngoog li nga wax. Mm-hmm. instrument boobu baaxul woon. baaxul woon moom la ñu waroon na la ñu waroon changer. wala ñu xool mm-hmm. circuit bi koy alimenter ndax amul anomalie. defuñu ko amuñu technicien yu ko mën a def. ñu caaxaane ko ba indi lii ñu indi roplaan googu ñu ngi wax rapport bi génn na xëy na day rafetal hmm. naan bi bi bi accident bi amee dafa dépressuriser ba pilote automatique bi moo indi avion bi ba dakaar Mm -hmm. waxi caaxaan la ñun technicien ci suñu biir dafa neexoon na tey technicien toog jàkkaarloog man. Hmm. roplaan bi ba muy mbëkk avion boobu mi ngi jaar ci suuf parce que mënut a jaar ci kaw procédure bi dalay wax nga jaar ci suuf parce que déjà booy jaar ci suuf ci la ci la mouvement bi di gën a gaaw. Mm. boo bëggee jaar ci kaw risque bi moo gën a rëy. Mm. bi muy jaar ci suuf malheureusement pour moom romb na ci kii bi aile bi mais genn gi moo lonku. catu elle mm. bi catu aile li nekk ci gennu avion bi nag mooy li nga xam ne mooy jox avion bi. yenn évolution yi maanaam bu bëggee tourner à droite ou à gauche wala bu bëggee yéeg wala mu wàcc léegi loolu am anomali loolu déjà bu amee anomali câble yi dag dog wala mm. mu damm wala leneen mm. pilote automatique amatu fa waxuma la loolu sax mais pilote automatique boo ko engagé ci roplaan am na mouvement brusque boo xam ne boo ko defee rek pilote automatique bi day désengagé wu mm. yow yaa koy préparé waat ba engagé waat ko amatul woon pilote automatique ñoom ci seen biir ñi ngi woon ci seen biir roppalaan gi geen gi yàqu na ñoom ñu jéem koo indi ba ndakaaru boo ñëwee ba ndakaaru nag yow yaay wut sa procédure pour mën a def sa boucle intercepter piste bi wàcce sa avion mhm. te loolu li la koy may mooy nga nekk pilote mhm. confirmé mhm. am expérience ñi lay jàppale ci procédure bi xam li ñuy def maanaam muy sa copilote muy sa mécanicien accompagnant parce que moteur yeeg yeneen yenn euh, surface yi ci roppalaan bi lépp ngay utiliser. Hmm. parce que amatoo li la ko doon may ci ginnaaw il faut que nga jéem ko am ci ci say aile ak ci say régime moteur. Hmm. donc loolu ay techniciens ñoo ci mën a wax mais ñoom loolu la ñu doon jéem a def moo tax ñu dem ba ci biir géej gi di ko tenter di ko tante ba bi ñuy waañ bi ñuy demee ba parce que boo defee moindre erreur rek roppalaan li koy téye ci kaw. moom hmm. la ñuy wax force de portance. li la koy may mooy nga nga nga am discipline de vol boo xam ne portance bi du inversé wu bu portance bi di inversé wu rek. Mm. sa avion di décroché ngay daan ñoom décrochage boobu moo leen dal. Mm-hmm. moo waral bi ñu gisee avion bi nee nañ dem nañ ba ci biir fa mu àgg sax waru foon woon àgg déjà déjà évacuation sanitaire la buy duggee buy dugg ci géej gi rek war na entamer procédure bi pour ñëw ci piste bi. parce que malade la yore. Mm. mais nañu duggee ba ci biir c'est parce que amuñu woon possibilité dégg nga def procédure boobu pour ñëw intercepter ak soupiste bi. dégg nga ñoonu la ñu def ba ñëw ndeysaan ñu décroché daanu ci géej gi malheureusement pour ñoom environnement boobu en général pratiquement kenn du fa nekk bu fa fekkul ay chalutiers. Mm. Euh, du ñu am chance. li leen doon may chance mooy mu dal leen foo xam ne ay pêcheurs nga fa ak yu kenn xam comme ni mm. li xewoon mm. avec le bateau le ñoo ñu mën nañoo alerter ba ñu mën a xam fi avion bi nekk ba secours yi mën a dem mais gis ngeen bi accident bi amee mm. euh, déclenché nañ plan Orsec indi ay roplaan France ñu ñëw roplaanu Sénégal bokk ci ay bateau ñu mobiliser arsenal boo xam ne tey jii lan moo ko fi jaroon mënuñu woon nañoo def maintenance boo xam ne defuñu mais defuñu ko waxuma la loolu sax mais ñu jël ay dispositions yoo xam ne hmm. bu warta dem bu mu dem ak anam ya muy demee ak kiy dem ak ki dul dem kan la loolu yëpp rapport bi war na koo mën a génne man nag ma nekk. Euh, foofu temps bi sax jeex na mais hmm. exactement yow Alassane ah, lan nga bëgg parce qu'on a perdu trente minutes. waaw te dossier bi dafa am importance tellement que. waaw liñ ci wax bari na. non liñ ci mënoon c'est vraiment dommage. mm Euh, man nag ma nekkoon foofu nekk sénégalais doon dawal askan wi lu mel noonu loolu am tey félicité wuñ ma. Mhm. décoré wuñ ma mais ñu xañ ma sama liggéey ba pare topp ma ci te loolu amul ku ko def lu dul ay autorité Sénégal yoo xam ne tey jii dañ leen tegoon emplacement boo xam ne pour ñu. aar askan wi. actuellement ñu ngi lay menacer ci dossier bi. mais amul mënuñu en fait ñu ngi def lu ñu mën mais man ci sama bopp maa jàkkaarloo parce que euh, tey jii euh, rapport judiciaire bi génn na ba ñu jébbal ko procureur de la république nga xam ne moo defoon autosaisine jour accident bi jébbal ko président de la république tegal ko ko ci taabalam man ma bind président de la république avocat yi bind président de la république président de la république xam ne man mii amoon naa jafe-jafe bu toll nii parce que rapport bi ma bind dama ko ko jagleel te bu ci bu ci bu ci doon à temps lii du problème bii du am mais kooku est-ce que war na mën a seetaan man ñu may bundu xataal boobu ba léegi ça fait huit ans. li nga bëgg mooy ñu euh, jox la sa licence nga mën a liggéeyaat. sama licence non seulement sama licence nañ ma ko jox samay droit nañ ma ko delloo ba pare préjudice biñ ma teg nañ ma ko dédommager à hauteur de de de li mu jar parce que huit ans liggéeyuma la ma yàqule bari na. samay doom samay. nekkatoo si armée bi mënatoo dem si aéroport fenn. benn compagnie sama sama carrière yàq nañ ko. âge bi ma toll nii tey jii presque je suis à la retraite boobu diggante boobu léegi lu bari waroon na cee mën a xew waroon naa ci amaat expérience bu bari demoon ci defi ay stage yu bari am ci ay diplôme yu bari formé ci ay sénégalais yu bari. loolu yëpp xañ nañ ma ko ndax seen bànneexu bopp ak seen intérêt bopp xooluñu intérêt sénégalais yi président de la république nag du ma ko bàyyi parce que ça fait huit ans may may wax moom ma koy mm. alerter cette année ci nag dama fas yéene jàkkaarlook état du Sénégal nañ ma delloo ci samay droit mm-hmm. parce que <laughs> la waaw non voilà donc euh, bu ñu ma delloowul ci samay droit nag euh, lu ñu gis ñoom la mm-hmm. waaw voilà mi ngi noonu ñu ngi koy remercier bu baax a baax dossier bi c'est tellement intéressant mais euh, retard u 30 minutes bi moo waral euh, euh, point yu bëree bëri mënuñ ko aborder en tout cas ñu ngi koy remercier bu baax a baax Alassane nekk expert aéronautique ci disponibilité am ak leeral yi nga xamante ni indi na ko ci accident boobu boobulee amoon ci Sénégal Air bi daan woon ci 5 septembre 2015 di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures di remercier invité Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabin technique bi émission bi mën ngeen ko euh, dégluwaat ci suñu chaîne YouTube mi officiel wala ci suñu euh, portail internet www.rewmi.com ma leen di wax ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité.